fekkee ngeen ko seen application des médias sur Play Store ou App Store aywa maam 7 h minutes ah. voilà ziar nañu ñëpp ñu fës kii ne ko doo rax yéen kaay groupe des médias dafa ñëw ci la nga xam ne moo xewoon assemblée nationale démb ñu tuddee ko kon acte de barbarie maanaam la nga xam ne nii wax fa dëgg neex yàlla sa àll ba rek la jekk. dóorante bi ak euh, arène nationale ba nga xam ne mbëri fa la ñuy daje ñaari député nee nañu ñoo euh, agressé seen benn naataango ay député yu doon defante euh, ñu ne nag flagrant délit flagrant délit mën na ci am yoon ndax nag pour motif causé blessure si ab soxna bu nga xam ne nii wala député bu nekk en état de grossesse yéenekaay bi foofu la génnee des députés à couteau tiré l'intérêt des populations négligées loolu pour kenn askan wa ci boppam dañoo jàpp ne député ya nekk assemblée nationale rupture bañ doon xaar ñoom amu fi amaana sax dafa gën a yées dafa mel ni yitte askan wi taxu leen a jóg. Hmm. en tout cas yéenekaay bi foofu la génne forum du justiciable ne kon nag loolu faw ñu condamné ko nañu ko condamné te nañu appel au respect. ñoom condamné wu ñu Mame Diarra Fam 2019. en tout nekk. nee nañu ñoom ñu ngi condamné. ñàkk respect bi nga xam ne ni wax fa dëgg neexal moo am assemblée nationale yéenekaay bi ñëw euh, ci ignorance paresse manque de temps les bibliothèques fermées nemmeeku nañu ko nag ndax nag Ah, bibliothèque yi daanaka kenn dematu si xale yi lire toujours ñu ngi jàkkaarloog portable yi téléphone waaw portable yi moom lañ gën a euh, amal njariñ livre yi maanaam di lire ak ñu ñu xeesoo œuvre programme ñu si bëri duñ ko jeexal donc yéene kaay bi dikk na ci euh, bibliothèque yi nga xam ne ñu si bëri dañ ko tëj université Amadou Mahtar Mbow juróom-ñaari at gannaaw liggéey ba président Macky Sall jot na ko inauguré ni ki rafet lu na pragmatisme bi nga xam ne moo ci am ak euh, tolluwaay liggéey ba melokaan bi maanaam rendu bi kontaan nañu si lool nag ñoom njiitu réew président Macky Sall ci université bu à bees bii ñu àddu jëmale ci sortie Aminata Assome Diatta ci mu doon sàkk ñu andi ay leeral ci tàkkadeer boobu nga xam ne moo faatu ñaar ñi réeroon lii ba kenn ki faatu ba ñu denc ko waaye nag sortie Aminata Aminata Assome Diatta boobee de Souleymane Ndiaye um, jàppale ne kon daf ko lu ndax nee na du waxtu wii. Walf Quotidien Souleymane Ndiaye waxul dara Souleymane Ndiaye waxu fi dara Aminata Assome Diatta li mu wax dëgg la dani bu ñu nee ba ñuy assurer suñu sécurité ñoom amatuñu sécurité ku ne war ngaa di waaye loolu du waxu moom bi moo waxul dala Souleymane Ndiaye nee na fu mu nekk du euh, waxtu wi nga xam ne moom la ko war ak ah, kay moom foofu la génne ci yéen kaay groupe des médias Walf Quotidien moom fi mu génne di sa pencum ndawi ma la république giflée askan wi ci boppam la ñu mbàcc. Mhm. waaw ndax li ñu ne meeku sa assemblée nationale. yéen kaay bi nee na askan wi la ñu mbàcc ndax nag gis nañu ay député yu nekk ci opposition bi yu euh, dóor nga xam ne moo di Ami Ndiaye ba mu yeewu jee sa l'hôpital nee nañ ñu ngi urgence en tout cas yéen kaay bi di Walf Quotidien moom moo génne foofu vente de maillot et gadget des lions la bonne affaire des commerçants loolu dëgg la man maa koy témoigner ndax nag euh, bésu match bi bi ñu amee ndam bi ñu génnee lu lu ci gën a ndaw a ndaw nag boo génnewul 2000 duñ la ko jaay waaw gadget yi nga xam ne moo am version 12 yow na tax version 12 rek am étoile donc nga gis ci sa bopp. yéenekaay bi foofu la génn. période bi la. ah kay période bi la euh, fi ñu toll la loo jaay mu jaar fu mu nekk loolu na laal version 12 rek <laughs> Walf Quotidien dafa ñëw euh, Reporters sans frontières ba nga xam ne moo demoon seeti ji Pape Alé taskatu xibaar bi. Walf Grand euh, Grand Place. waa Grand Place parce que soppi nañu tur bi ñoom Najib Sagna maa ngi leen di nuyu bu baax. waaw ñoom ñoo ñoo ñoom Oumy Diakhaté ak ñoom Jaraaf sama mbokki journaliste yi nekk Tëngéej. Eh, Mame Mbaye Mame Mbaye si yéen <laughs> parce que ay taskatu xibaar lañ samay naataangoo. Ah, ok nuyu naa leen moom ñoo géré waa Grand waa Grand Place ñoom ci boppam Euh, dikk nañu ci euh, Reporters sans frontières ba nga xam ne demoon nañu seeti ji njiit la demoon na seeti ji Pape euh, sa kaso ba mi ngay fàttali njiitu réew mi président Macky Sall ay waxoom moo fi waxoon ni ci sama régime kenn du fi tëj taskatu xibaar nee na yaa ko waxoon te mbir yi wax waxeet lay gën a niru Aliou Cissé fu mu nekk nii nag souvent critiqué dans ses choix Aliou Cissé se retrouve toujours avec son public en tout cas lu mu ci mën ci doon rendez-vous bi jot na ba noppi donc nag di dimanche la toog di xaar rek yàlla ñu yàlla may ndam euh, Angleterre doon pomme de terre le témoin dafa ñëw ci député bi nga xam ne dañu ko mbaj di Ami Ndiaye si assemblée nationale ñu soppi ko arène arène gladiateur ndax mbiri kat si la doon nuyu ya nga xam ne moo xew sa biti réew yëkki tànk kat ji jëmale ci ab soxna bataille rangée ay saisi saisi daal di jolli saagante yi Ami Ndiaye ñibbi ñu daal di koy mbécc euh, am naataangoom bu bokk ci pur la ñu wax le spectacle offert hier dans l'hémicycle était tout simplement navrant donc askan wi gis na ni ñu ko doon ñaawloo la nga xam ne moo xew sa assemblée nationale troisième mandat bracelet électronique yi Ismaïla Madior Fall démb amul dara may ñu ko ci mayuñu ko ci dara sa assemblée nationale député yi façon laaj bu nekk laaj nañu ko ko démb ndax moo doon jàkkaarloo wax euh, député yi suuf soir dafa ñëw euh, ci euh, gagner cette coupe du monde loolu moom wax fa dëgg neex yàlla moo tax a jóg sunu équipe nationale bi Ismaïla Jacob arrière gauche bu gaynde la ci séqal waxtaan moom suuf soir nee nañ dinañ Euh, benn meilleure organisation bu nga xam ne dana tax ñu am ndam ci euh, kanamu Angleterre Ami Ndiaye ak nag euh, yóbbu nañu ko sa urgence moom député bi ne ñu dafa nekk ni état de grossesse ak nag kajj bi ñu ko kajj nee nañu si biir tax na fu mu nekk nii moo ngi urgence ñoom seen i naataangoo ñu ngi ñaan kajj waaw gis nañ vidéo yi yaa ngi gis vidéo mi ngi circulé ci biir wala ci dënn wala fu mu ci man ci doon tànk bi jib na dal ci ki nga xam ne moom mooy Ami Ndiaye en tout cas dafa nekk en état ngi urgence ñoom seen i naataangoo ñi ngi ñaan mu mucc moom ak doomam euh, yéene kaay bi dikk na ci ak groupe parlementaire bu jigéen ñi Benno Bokk Yaakaar amal nañu janox taskatu xibaar yi démb inauguration bi université Amadou Makhtar euh, Amadou Makhtar Mbow bu euh, Diamniadio l'avènement d'un projet pédagogique majeur ndax nag université la bu mucc ay yuux gu mujj gi dernier cri hmm. donc lépp lu ay jumtukaay yu nga xam ne nii am na si daara yi kaw yi am na fa def nañ ko ba mu mucc ayib donc jàng rek la ñu sant li nga xam ne moom mooy étudiants yi parrain bi di Amadou Mahtar Mbow euh, may na leen bibliothèque am bu nga xam ne dix mille ouvrages mi ngi ci biir moom may na leen kon nag lii rek mm. faw ñu nafar jàng moom qualité la ñu bëgg euh, réew mi quotidien dafa ñëw ca pencum ndawi réew ma réew mi quotidien pencum ndawi réew ma violence assemblée nationale l' institution balafré yéenekaay bi ñaawlu na ko Mimi Touré nag démb bi mu jàkkaarloo wax naataangoom bi di Ismaïla Madior Fall moom mu ngi ko doon euh, wax nag ne que tey jii nag da war a rek mu leer pour ou contre ci troisième candidature. bu mhm. président Macky Sall. moom a Madior Fall la mu ca tontu euh, dinañ ci dëkk ci biir euh, xibaar yi en tout cas yéen bu foofu la génne di réew mi quotidien le quotidien dafa ñëw ci assemblée nationale benn député bu nga xam ne ni daanaka dañ ko dóor ci anam gu jéggi dayoo bañ koy bàccari xewar yaa yaakaar naa ne mu mujj ca l'hôpital craque de faim. Amadou Niang et Massata Samb nee na ñaar ñi ci yeewi la ñu bokk ñoom ñoo acharné wu eh, ci eh, soxna si di Amy Ndiaye ñii bi la évacué nañ ko euh, l'hôpital gannaaw ba mu amalee ab malaise l'observateur dafa ñëw ci barbarie ba nga xam ne moom noonu la ko tuddee à l'état pur mais jeu de mots la andi euh, pur comme parti bi le film de la honte la gifle de Massata et les menaces de plainte en tout cas yéenekaay bi dikk na ci fram fàccee la nga xam ne moom moo am comme actualité ca euh, la xewoon sa assemblée nationale defante gi euh, dikk na également gëstu si dunduk Ami mi nga xam ne ay jaar-jaaram euh, mu tuddee ko Ami Ndiaye la rebelle de Gniby nee nañ koo xam ne nii wax fa dëkk ku bëri xadar la moom Ami Ndiaye bi dikk na ci. def gi yow Mamadou Fofana. flagrant délit. waaw flagrant délit dañ ciy dindi seen seen. immunité parlementaire donc si poste. non bu dee bu dee flagrant moom du ñu xaar ay ay immunité ah, parlementaire. ah moom moo daaloon euh, député député euh, euh, kii la tuddati. ki ki doon xaar Bougazali. mi ñu doon wax mi doon wax ci wàllum. faux billets faux billets en tout cas loolu yëpp dina bu toppee actualité bi xam nga gars yi moom dinañ topp actualité bi. ba lépp lu ci luñ ci mën a jàpp rek dinañ ci dinañ ko ci am libération dafa ñëw ci rapport deux mille vingt deux mille vingt et un rapport bi nga xam ne loo ca teg loxo ñu ne la secret défense si euh, ñenn ñi en tout cas ñeneen ña ñu joxoñ baaraam bokk na ci pharmacie nationale d' approvisionnement ñoom it ñu ngi ci biir jàppale ne mairie bu Malika mi ngi ci biir Dakar Dem Dikk moom nee nañu moom la fa am nag si gestion bu mujj bii jéggi na dayo ministère de la culture et la communication achat de matériel de protection contre la Covid mi ngi ci biir mairie Hann Bel-Air les daara présumés bénéficiaires ñu ngi ci biir DER moom euh, dafa mel ni dafa yoroon ak deram rek fu mu fu mu ko soob rek mu dóor fa en tout cas moom it mi ngi ci biir ci rapport bi joxoñ nañu leen ah, baaraam Yacine seen rapport bi rapport bi kay kenn xamul lu mu doon <laughs> ñaar doom lañ si tàcc ñu seet ñëpp moom ñu ngi ci biir soos bi ñu jeexaleex l'exclusif gannaaw ba huit heures jot na ba tegal une minute. mais PNA moom saw ay ay marché quatre milliards yoo xam ne amul benn benn dara lu koy justifier ah euh, kii secret defence ah secret défense. gars yi ñu ne secret défense dossier dossier Oja lu dafa ñëw ci euh, Soham El Wardini ex maire bu Dakar xam nga ne dafa bokk moom ci ñi euh, pointé du doigt wala sax <coughs> entre guillemets épinglé euh, mm. rapport ARMP bi moom nag nee nañu fu mu nekk wañ nañu ko ba mu set daal di kepp en ñu ngi xaar nag boowee la lay andi waa ARMP ñoo def loolu bokk na si ñi nga xam ne dañ leen lessivé alors soxna yi nag ñoom ñoo taxaw yor seen pancarte di wax ne touche pas au sexe faible lii dafay revenir un peu ci la xewoon sa assemblée nationale ci seen doxum euh, ñaxtu ndax am nañu ko improvisé démb doxum ñaxtu sa buntu assemblée nationale. très eh bien aywa huit heures jot nañu. ànd seeg euh, rek. nañ ci boolewaale bu deux mille dix neuf bi rek. ah ñu boolewaale ko. waaw ah. ci nañ ci boolewaale yëpp. assemblée nationale. fit na ko waaw. <laughs> da ca gën a ñu wax ci dégâts yi am ci euh, géej gu yëngatu fële ci diwaanu Guéréo lafa yàqu ci gaal bari na lool assemblée nationale ak jigéenu benn bokk yaakaar ni daañu kalaame lu mooy loolu itam euh, Adji Sarr Ousmane Sonko nee nañu daañu jàkkaarloo ci kanamu àttekat bi des na ko waxtaan waxtaanee ci xibaar yi laataa ñu ñëw ci xibaar sport di ci ànd ak Baye Mante Mbuub ndax keppe xibaar yi yéen a kaay ak euh, Mantoulaye Thioub Ndoye faram-fàccee ak Mame Mbaye Ndiaye.